tey jii ak askan bi ni ñu taxawee wane na li fi xawoon dootu fi xewati li fi amoon dootu fi amati et que juge yeeg magistrat yeeg alkaati yeeg gendarme yeeg ñëpp ñi nga xam ne que fu ñu leen joxoon ñu xool li leen wax ñu def ko ñu def ko et que peuple bi jëlaat na sa souveraineté et que par voie de conséquence nanguwuñu que ñu jël ay kàcc ak ay fen di ko teg ci dox doomu aadama yi léegi nag loolu moom moo tax nee nañ nañ ko bàyyi mu ñibbi suñ ko soxlaa mu wuyu si bu fekkoon ne que ca njëlbeen jaare na woon nu yëf yi yoon kon tey jii li xew yëpp du xew wante dañoo am abitude di jël nit ñi di leen saax-saaxe di leen patam patame di leen def lu leen neex tey jii ku mel ni procureur de la république dafa war a démissionner ndax tey jii trouble li fi am yëpp mun nañ wax ne que bu fekkoon ne o départ àndoon na ak xel ànd ak xalaat ànd ak li nga xam ne que juble ak li nga xam ne loolu la yoon wax kon tey jii li am fii yëpp du am. Mhm. déclaration ministre de l' aussi wane na ne que ministre de l' intérieur costume bu ñu ko solal costume boobu ëpp na ko nu ko summi ñu jox ko koo xam ne que dafa am sagesse koo xam ne que dafa ànd ak xel koo xam ne que aussi dafa dafa dafa respecté askan yan tuuma lañ teg ci et libéré non que nous ne sommes pas satisfaits le concernant nous allons nous battre pour obtenir sa Mais au-delà de Ousmane Sonko, pour dire qu'ils sont dans les jeux pour que de manière le Sénégal puisse triompher dans l'expression vivante des libertés, mais également pour la sauvegarde de notre démocratie de manière irréversible. Ce combat du peuple va continuer parce que la libération de ce peuple vaut tous les combats et c'est la raison pour laquelle nous avons soutenu vaillamment avec le peuple sénégalais le président Ousmane Sonko. mbokk internet ñu ngi fii ci palais de euh, justice bi nga xamante ne ni tey ci euh, suba ki xam ne moom moo di euh, Ousmane Sonko jàkkaarloo na ki nga xamante ne moom moo di juge Samba Sall ngir wuyu ci dossier bi nga xamante ne moom lañ ko takkal te muy rek menace de mort ak viol ci ki nga xamante ne moom moo di Adji Sarr ginnaaw bi nga xamante ne nag wax nañ ni ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko il est placé sous contrôle judiciaire maanaam rek dañ koy bàyyi nii mu dem waaye nag yoon da koy teg gët ba léegi bu ñu sukkandikoo nag ci kaddu ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo koy layal di ay avocat la ñu wax rek ne yoon lam leen xamal wala boog la mu def comme résumé rek moom mooy xam nañ ni li nga xamante ne moom moo di euh, complot dafa rax ci euh, dossier bi.